Ça m'énerve. Ça m'énerve. Billahi, même quoi non. Ça m'énerve quoi. Billahi. Ça m'énerve. ravi de vous retrouver amis fidèles l'interne de Public SN ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am di différentes plateformes YouTube Facebook Instagram TikTok. TikTok ak X ñu ñëwaat ak yéen nag si benn concept boo xamante ne dañuy daal di dugg si biir Ndakaaru xool ñi nga xamante ne ñoo fi yeewoo lan moo leen di énervé si réew mi muy euh, rubrique boo xamante ne muy ça m'agace ça m'énerve donc nag gis ngeen tey dañuy dem dugg xool mécanicien yi lu leen énervé Jakarta man yi ñëpp daal lu leen énervé bu ko defee ñu wax ñu ko ñu daal di ñëw euh, jox leen ko en direct si euh, Public SN jërë ngeen jëf. leen di delloo nuyu bi. Modou Ndiaye dañoo ñëw fekk leen si marché HLM ngeen nekk ay cag-cag maan coow lu bëri loolu si yéen lu leen énervé rek si réew mi la ñuy laaj du leneen. Euh, lu ñu énervé si réew mi nekk lenn lu dul loo xamante ne ñun ñi nga xamante ne dañoo jóge foo xamante ne fu sori la euh, ñëw fii di daan suñu doole di yóbbu ci suñu njaboot parce que bu ñu ñëwee Dakar ay caaxaan indiwuñu Dakar dañoo ñëw fii pour liggéey daan suñu doole jàppale suñu mbokk ak suñu waajur mais nag euh, dëkk bi naqar naa liggéey. dek bi mom pour nga liggéey fi xawna metti métti lool parce que ñu la wara a jàppale ñoo lay def lo xamantene naka naka su dul nonu la quoi parce que à chaque fois dañuy jankonté lu metti ci talibi da ngay dawal police yi di la kar di la def ni to loolu yépp mën na ñak quoi xam nga police yi tay moo ñooñu war a encouragé waaw ñu parce que ay xaré lañ to ñu ngi liggéey di jéem a ci ñu doole kenn ñoo xaar ñu liggéeyu kenn itam bu ñu ñu ngi si ñu ngi suñuy waar di jéem a xool loo xamante ne tey dinañ ci suturoo quoi waaw di jàppale suñu bopp xaaruñu kenn ku ñu jàppale itam mais am na yu métti lu ñuy jàkkoonte si tali bi parce que tey police da lay arrêté di la talal ay loxo mën ngay daw dal si nit gaañu mu indi la yeneen jafe-jafe te aussi à chaque fois da ngay dal da ngay daw agression yi yaa ngi si tali bi ngay jànkoonteel ay agression yu métti yaa ngi gis sama loxo bi nii dañ ma jamoon dañ ma jamoon barke. lii kañ la. li defagul sax 15 jours defna une semaine daawlu ma moto dañ ma jamone loxo bi monagul japp ba lo la ne bañ jam la. euh dara di dawal sama moto di livrer sama bagage xam nga ne kon dekk bi ba legi mu ngi manki sécurité to lol yëpp police yi ñoko wara def. teyel ma sama kaas bi te xam nga lol yëpp police yi moo ñu war a mën a jàppale si loolu dañ lay agresser ci kanamu police yi duñ la sax liggante ñu lay sétane ñu yobu sa alal kenn du la liggante. police yi da ñolay énerve waaw loolu moo ma métti si tali bi waaw seen comportement parce que tey jii mën nga arrêté nit ki saa otaa nga daaneel ko wala nga def ko loo xamante ne méttiwu ko wala nga koy saaga maanaam ke ke nga xamante ne dala dala war a jox kii ba pare di la saaga ay nangam taanal def nii xam nga loolu yëpp mën naa ñàkk loolu yëpp mën naa ñàkk te ñun ñaanuñu kenn dañuy liggéey dañuy liggéey ñaanuñu kenn waxuñu kenn dara waxuñu defuñu kenn lu ñaaw xam nga ne ku jóge àll ñëw fii ay caaxaan indiwu la fii da nga ñëw liggéey pour yóbbu sa njaboot loolu moo ñu fi indi waaye du leneen. yow la moo leen. man de moom policier yi mooy sama problème moom. tey policier la policier ñoo tax mu ñu ma am dërëm. da nga xëy liggéey bu jant bi so nga am benn junni ñu nangu ko. Ah, junni bari na junni ngay am ñu nangu ko. bu ñu yóbboo mu dugg. lan mooy natt si. mooy bu ñu la jàppee li ngay fay rek. Ah, kayit bu la bindal. non du ñu la bindal dara. jël noonu rek. mën na laa jàpp fii nga dawaat même ba benn diir bu ndaw ñu jàppaat la nga fayaat benn six mille. muy wax billaahi loolu lañ koy dund si télé bi naas. waaw man moom kontaan ma ci lool moom police yi moom damaa bëgg. waaw Sonko mi nga xam ne. moom doon xeexal. Sonko ngeen doon xeexal. la doon xeexal mu wax police yi. police yi bàyyi jàppe gi. danoo sonn man da su may wax rek police yi ñëw tax mënu ma am dërëm. dama police yi ñoo am dërëm. policiers yi ñoo leen di énervé kon yéen. billaay moom énervé yow da ngay bu jant bu so ñu inquiété li nga yor waaw man moom loolu mooy sama problème lépp wax la yi waaw loolu mooy samay kaddu yi mooy maye. yow moo ñu war a jox cër di ñu bindal papier boo xam ne sax même même mois dañuy fay vingt mille sax ñu koy def ñu loolu moo ñu gënal. ñu waaw moo ñu gënal bu ñuy fay cinquante mille weer sax moo ñu gënal policier yi ñuy jàpp ñuy daw parce que wóorul yow da ngay dem bay jub policier jëlaat sens interdit tourné waat te loolu ay risque la risque yooyu yëpp ñoom duñ ko sooraal li ñuy rey accident yu bëri yëpp ñoo koy waral loolu dafa métti nag ñun dañoo jógee dëkk bi ñëw fii pour daan doole dimbale suñu wayju dëkk bi moo ñu gënal fii fuuf bu ñëwee fii dañoo ñàkk pexe liggéey rek moo ñu tax jog jóg gars xam nañ booy liggéey ak booy sàcc léegi mënuñu bàyyi booy sàcc ba pare ñëw fii ñun diñu diñu diñuy jàpp loolu neexul quoi nañu nañu nañ ñu woo waxtaane ñun ñu xoolal ñu solution ñu jaar fa liggéey ñun loolu moo ñu gën a liggéey moo ñu tax a jóg quoi waaw dafa métti trop billaay dafa métti da ngay dem ba découragé ba bëgg ñibbi waat fa nga jugee sax te te ñu dëkk Sénégal fii war fee liggéey xam nga loolu tamit di yoon walaay non waxal saa mi neer ah non saa mi lu ma defee policier yi la a si booy yi dawal cag cag ñoom ñëpp. côté policier yi rek côté policier booy ñun booy ñuy dawal. ñi di dawal cag cag. Euh, ñun ñuy dawal cag cag a am nuy nuy doxalee nuy doxalee cag cag day day set ah, di di sol gant takk dàll fermé sol casque mooy yoon. doon léeg-léeg nga gis cag cag man yu forox. non bëri na fi benn si man yéen a ma xasawee damaa forox toll benn si man laa la si man la koy njëkkee ah, ni doomu aadama doomu aadama doo bëgg ñu jëloo cër daay jox sa bopp cër ñu soog la jox cër ah ci benn ci côté côté policier yi policier yi ni ni ngi arrêté booy di métti na daay gis ku toll fee arrêté benn booy booy bi booy bi da allié ah ñëw dat sa kaw ah, ya jàpp booy bi doogo doogo loolu du yoon loolu du yoon loolu loolu du yoon parce que booy mën na daan damm xam nga doom yi fukki fekkee dix franc lay def seen kër ah dix franc boo yaa ngi koy yàqal waajuram ah te loolu dafa métti ah bakki dema ndiay dañu jàpp benn booy fii ah trois jours am na ko eh, moto bi am na ko fee ah te mu war a joxe dépense chaque jour trois mille trois lekkut loolu dafa métti moto bi moto bi moto bi ñu tey ci leen yaakaar muy yor kër daal muy muy ku nekk am na jabar fii ñu fa amu jabar dañ koy compter loolu moo lay énervé loolu mooy énervé booy tamit nañ nañ def régler affaire bi mu dox dox teg si kot di sol gant di sol kas di sol daal fermé sol yëre yu set kese saa mene <laughs> lan moo lay énervé. léegi kay policier rek la léegi nii léegi nii lañ ma mujjee jàpp fee Colobane. Colobane da fay. dama fay kay dama fay ñuy dog ma bay waaw te ngi ni wara ko tabas tak na jabar waaw xam nga lolu yow bintu may ma bintu may wa ban lay ene lay énervé papa man papa li ma fils li ma énervé ñii dañoo wax ba jël nguur ki liñ wax ni ci ñun sol nañu gi nga mango ji may ma damaa xiif man dong dañoo xiif yaa ma nit ñi dañoo xiif nguuru Sénégal wax yoru ko dégg nga ni ma la wax nit ñi dañoo sonn yow fii la ñuy wax ne ne buñ gàñee réew mi dañuy wàññi dund bi ñun amuñu lu may dund bi ak essence ak ak ak ak gasoil bi mais waxi neen yoru kër yoru tam réew na dem liggéey mango ji macc maa tey damaa xiif du man doo nga ah, te ma am na sa teneer waxal sa mener ah waxal sa mener ma dama mer dama énerve sa énerve dama énerve waaw ñii dañuy wax dañuy wax du nguur ak gone ñun ay mag lañ lu ne fekk nañu fi nan wax askan wi nan nu dimbale nit ñi affaire toppanteeg yooyu nañ ko bàyyi nan liggéey mooy fulla yi li ci def ay caaxaan la nit ñi sonn nañu lii laa soxla waaw ñii dañuy wax rek man maa ngi tudd uh, Modou Diouf ah, dëkk fii Sel Mbadaan nekk uh, ouvrier waaw. lan moo lay si réew mi Modou. non réew mi moom presque boo xoolee réew mi moom mu ngi dox normal. mais mujj si sa côté. waaw mu ngi ci ñun presque plupart rek ñëpp ñëpp. xamal sa bopp rek nag nekk neel si man rek bul yóbbaale ñeneen ñi. neex na ci man mais li ma énervé mooy. gars yi dañoo tel ci affaire opposition bi ñun waxuñu waxu uh, pensée unique. ñun kenn ku ne am nga sañ-sañ li la métti nga koy exprimer nice mais bay ay tuumalanteeg yooyu ñun man maay lancé appel président Ousmane Sonko ak euh, président Diomaye léegi nañu jàppale jeunes yi comme ñoom ñoo ko waxoon nañu jàppale man ma man midi wax nii nii man nekkoon naa mandataire am mandataire am fale fii Sane Badane village bu ñu wax xawlu ko dégeen depuis bu mu commencé campagne ba léegi deux 2014 ba léegi première élection am 2017 maa maa maay maa ngi nekk mandataire am foofu ba deux mille ba deux mille vingt quatre yii di passé nii nii li ma koy wax daal mooy na jàppale jeunes yi jeunes yeeg ah, jigéen yeeg ñi nga xam ne aussi seen loxo jotul seen ginnaaw aussi mu jàppale leen comme ñoom am nañ ne gouvernement bu bees la te ñoom am nañ intention defar ko na gars yi maye tuuti temps tuuti temps. énerve daal mooy soqatoo bi nuñ koy soqatal nii. voilà loolu kese gars yi bëgguñu dëkk réew mi normal. c'est que boo xoolee ñu ñuy defee du yoon du logique nañ bay gars yi jël temps defar xam nga ne suñu président euh, Bassirou Diomaye fay mu ngi def affaire diplomatie mu ngi dem ci réew yi suñu xaritu réew yeeg yooyu di waxtaan ak ñoom en même temps aussi ñu ngi lijjante fu ñu mën a amee xaalis aussi mën a liggéey réew mi léegi nañ xaar tuuti rek nu ñu doon opposé ñun opposant la ñu woon opposant bu gën a jafe ci réew mi ñun la woon mais léegi ñun ñoo nekk ci pouvoir bi mën nañoo toléré lu ne mais saga mom bokul ci tolérance bi saga affaire góor jigéen ñi ñuy wax ñoo gën xamné lan moy indi affaire Ousmane Sonko bu selmi koku mo gën a gars yi dañoo jàng to xamuñu dara ci affaire jang toléré nekul né dañ ko accepter to mom wax na né Sénégal accepter wu ko ñun paré wuñu pour lolu ñun ñi di wax nii né kenn ci buñu ñu référendum tay tay tay 100% yépp anu yëpp ànduñoo góor mais il faut ñu xamné Sénégal paré parewul pour góor jigéen te du mës paré wasalaam. waxal ça m'énerve. non énerve bi mooy. gars yi waxal rek ça m'énerve. man ça m'énerve parce que boo xoolee li ma énerve mooy gars yi commencé ci opposition affaire politique politicienne. dafa teel nañ xaar fii mille bu bu bu élection yi desee benn at. bu desee benn at ñu commencé jàkkaarloo ci politique bi. ñu bari ci waa Benno Bokk Yaakaar du ñu nekk ay candidat li ñu daan def dinañ ko fay ba mu ne nice waaw na procureur bi ubbi dossier rek waaw. voilà mbokk yi comme ni ngeen ko gisee nag lii moo nekkoon euh, ça m'énerve bu ñu doon tourné xool askan wi la moo leen naqari si réew mi gis ngeen nag ku si nekk wax nga li la naqari donc c'est personnel euh, mu ngi noonu dinañ ko defaat dinaa leen ko di leen faral di leen ko jox ñu koy def très souvent dugg si gox goxaat yi ñu leen defar émission ça m'énerve képp na ku bëgg ñu ñëw sa koñ nga wax euh, li nga xamante ne moo lay énervé si sa koñ si si si réew mi da ngay woote si numéro yooyu di affiché au bas de bu ko defee ñu daal di woo suñu équipe man ma ñëw fa ànd ak cadre wala ñeneen ñëw fa bu ko defee ñu waxtaanee ko suñu biir lu leen naqari dañuy naqari day naqari askan wi ngir ñu mën koo changer defar ko Momar moo nekkoon si cadreur bi euh, moo nekkoon si cadrage bi donc dama leen jox rendez beneen jour ak beneen heure ak beneen gox bu ko defee ñu tourné li nga xamante mooy saam Sam Notaire